ñent ci weer wu ne nu yéene ne nañ séentu weer yi te lu ci xam nañ ko yëgle bi ñu defee loolu ba àggal nag danoo toog ci sowu jumaa ji di séentu ak di taatan xibaar yi bi ñu taatanee ba waxtu wi nag yàlla dogal na xibaar yu bari jóge nañu ci direction yu bëree bëri wane ne weer yu na ba yàlla dogal na xibaar bi nu mujj a jóg jël jël sax ci fa sëñ ba la jóge fa sëñ Muntaxa léegi dina ko yëgal waaye boobay da ko dañ ko koo wax mu ne moom du def dara lu day soq ko fi noonu da ci day xam ñu nekk ba noppi booba lañ daal di wax yëgal ni ko nuyu yooyu xibaar ak si na mu ne kon mën nañoo yëgle ne weer yu feeñ na kon ñu xam ne weer yu feeñ na suba mooy bisu korite suba ci altine ji mooy bisu korite weer yu feeñ na yàlla na ci yàlla may dimbali ak xéewal ak jàmm ba ban fekk ko ñun ñëpp ëllëg dara ci déwén ci dara ji Sëriñ Tuubaa